ñoo ngi leen di nuyu di leen nuyu ci barab bu tedd bii ci teewaayu kilifa gi tedd gii di cheikh Mouhamadul Muntaqa alxalifatul aam di leen nuyu ngeen xam ne itam ñi ngi jëm ñi ngi jógee ci bis yu màgg waaye ñi ngi jëm ci bis bu màgg bi bis bi nga xam ne nag mooy bisub Sëriñ Tuubaa di bis bi nga xam ne mayam gu réy gii ak li nga xam ne moom la ko sunu boroom defal lépp ni mu rëyee lépp nee na ci bis boobu la ko sunu borom may may googu ci la yàlla nangu ñaanam yépp ba sunu borom defal ko lim doon wut lépp muy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar kon bis boobu tey jii di Cheikh Mouhamadul Mountakha ngeen xam taxawaayam ak jubloom ak nammeelam ak cofeelam gim am ci Seexul Xadiim nga xam ne mën nañoo wax ne mooy jëmm ji nga xam ne lépp lu ñuy soxla ci kaw suuf muy nekk ab julit xaqan modèle la ca mooy nekk murid saadiq xaqan la ci muy nit koo xam ne dafa fonk doomu aadama yëpp bëgg doomu aadama yëpp kenn ku ne mu yéene la loo xam ne lépp lu mu yéene boppam rek yéene la la ko loolu yi mooy aw doxinam bis boobu di bëgg a ñëw nag moo tax tey jii muy woote kon ñu ngi wax jox kàddu gi cheikh al muntaha al xalifat al aam li tariqat al muridiya ñu bokk déglu ko noonu ñëpp salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mu ne noonu yi ñu wax rek noonu la du ma ci dolli dara lu dul ay cant rek di yeesal sunu cant ci sunu borom mi nu booleeg Serigne Touba di yeesal sunu cant ci Serigne Touba mi nga xam ne mooy sunu lépp tey ak ëllëg. bokki jullit yépp ci fan yi weesu di yeesal sama cant nag ci sama bokki jullit yépp ci bis yi nga xam ne moom la weesu rawatina nag sama bokki taalibe rawatina sama dëkkandoo yi mooy ñi ma bokkal réew sama dëkkandoo yi nga xam ne ñoom laa bokkal réew mi ñëpp laa sant laa sant cant gi ma sant gi ma sant sama làmmiñ lott na ci sama làmmiñ lott na ci man koo wax man koo wax sama bokki bopp yi nee na bokki boppam yi bi ma waxee bokki jullit yëpp bi ma waxee bokki jullit yépp moo ci mën a ñàkkal yi nga xam ne ñoom laa liggéey bi ci ñàkk sama bokki kilifay diine yi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi liggéey liggéey bi nag mooy lislaam donc ñëpp kon nag kilifa yi diine yi ci réew mi yëpp sëñ bi nee na mi ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm di leen gërëm ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay taxawaay bi mat na sëkk taxawaay bi mat na sëkk ci yéene ji ci yéene ji ci pësteef ci pësteef bi ci yitte ji lépp mat lépp mat lépp wan nañ ma ko lépp wan nañ ma ko gis naa ko gis naa ko yëg naa ko ci sama xol sant bu baax kon maa ngi leen di sant bu baax ñoom kilifa yi gën a feddali sama laxasaay am gën koo ànd ak ñoom ci fas yéene liggéey lislaam te fas yéene naa feddali sama laxasaay fas yéene ànd ak ñoom ci liggéey lislaam geneen geneen geneen sant cant goo xam ne geneen cant goo xam ne dama koy sante suñu borom dama koy sante suñu borom moom mi nga xam ne mooy def di dindi cant googu moo di lan cant moo di lan kilifa yii ma bokkal Serigne Touba kilifa yii ma bokkal Serigne Touba bokk liggéey bi. ñu bokk liggéey bi. Eh, ñoom nag eh, xaw ma nu ma leen di sante. ñoom nag xaw lu ma leen di sante. ndax li ñu ma defal rëy na lool ci man. ndax li ñu la li ñu ma defal rëy na lool ci man. xam naa bu baax doyloo gi nga xam ne doyloo nañ ko dañ lañ ma bi. xam naa bu baax doyloo gi nga xam ne moom lañ ma doyloo sama diggante ak sëriñ bi. Eh, loolu. lenn loo xam ne toll nañ menn mbir mu toll mu toll noonu fi man amut loolu menn mbir mu toll noonu fi man amut lu rëy la ci man lu rëy la ci man tawfeex ju rëy la ci man tawfeex ju rëy la ci man jëf ju rëy la ju jógee ci ñoom jëm ci man jëf ju ju jógee ci ñoom jëm si ci man la sant naa leen gërëm naa leen sant naa leen gërëm naa leen di ko seereel sunu borom mi nu booleeg sëriñ bi di ko booleeg di ko seereel suñu borom mi nu booleeg sëriñ bi di ko seereel sëriñ bi muy lépp tey di ko seereel bi nga xam ne mooy suñu lépp tey ëllëg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 te jéem a jëfi ndigalul lim ñu sant ndax xam na bu ñu ko santee rek yàlla danañu ko jàppandal kon eh, ci ndigalu sëriñ bi ñi ngi mi ngi nuyu bokk jullit yépp di nuyu bokk taalibe yëpp di leen fàttali li nga xam ne kenn fàttewu ko muy bisub seexul xadim bii nga xam ne moo jub si di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar te ren jii mu war a dëppook alxames fukki fan ak ñaar ci weeru octobre euh, sëriñ Touba digle woon ko mooy bis bi nga xam ne ci la bàyyi ko woon ngir liggéey le rasulullahi sallallahu alayhi wa ci nattoom yooyu yi ba suñu boroom jeexal nattu yi nag sëriñ bi xëy bis woolu sëriñ Balla Fally Dieng yónni ko ci taalibe yi xamal ko nag bis bii bu agsee muy ñaan képp koo xam ne mbégam sa mbéga nga sant la ko ci yàlla lépp lu ci waay man nag li tàmbulee ci ganaar ba ci gileem bu agsee bu ci kenn yéem dara bu ci kenn xeeb dara nga santale ko yàlla ci bis bi bis bi nag xam ngeen ne Sëriñ Tuubaa da ko fonkoon lool ba taalif na ci xaside yu baree bari ci bis bi ndax wax na ne bis bi lépp lu mu am rek ci la ko amee ndax ci la jaayante yoon liggéey la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba suñu borom faye ko lii mu ko fay tey te ba muy ne ci géej gi nag ci la ko Serigne Touba junjoon ndax dafa bindoo ne katabtu yowma sabti inda galwa baada jihaati wa firaqil balwa alhamdulillahi lasi qad raada li al ida wa saaqa li ahrada fustu lada galwa wa inda ba afali bima bihi uniru kulla ma afali mooy lii ñu gis tey ñëpp gis ko muy loo xam ne moom la ko suñ borom fay kon nag sëriñ bi nee na ni ko ko ni ko sëriñ bi diglee te mboolem ko fi mas a nekk sëriñ Tuubaa ku ne woote ko ngir sant la ci sëriñ Tuubaa boroomam ñaana na loola rekk lay fàttali ndax sëriñ bi ku ne xam na ne eh, da ko wootoon ci jaareem ne fépp waaye nekk na ko na ko fa sant la yàlla bu agsee bi sëriñ bi ñibbisee Tuubaa itam Cheikh Mahodou Moustapha wéyal loola ba Cheikh Mahodou Fadil ñëw wax woote ko ne ko ñëpp ñëw Touba ngir sant la ko yàlla ci bis kon nag nee na mi ngi fàttali li nga xam ne ñoo ko fi jiitu woon daanañ ko santaane te ndigal la tàmbali woon ci Sëriñ Abdul Ahad mooy njàngum kaamil yi dafa waxoon ne màggal gi nañ koy jàng jàngal sëriñ bi ñaari kaamil ginnaaw bi sëriñ Saliou Mbacke dolli wàcc ne nañ ko koy defal ñetti kaamil ngir di ko ci ñaanal mu yàgg fi te ginnaaw bu loolu jàllee nag sëriñ bi nee na ginnaaw bu mu yëglee bis bi bokk jullit yëpp ak bokk taalibe yi mi ngi sant nag ñëpp di sant mboolem ñu mu bokk lislaam ji bàyyiwu ci kenn rawat ci xew bi weesu waxal na ko boppam ñëpp dégg yëg-yëg bi ci am ci diggam ak sëriñ na dolliwu ko dara lu may na jël léppam jëbbal ko sëriñ kon nag sëriñ bi nee na mi ngi sant ñu mu bokk ji yëpp ndax xam na ne suñ borom moo waxoon ci alxuraan ne يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نيانا لول نكون ويش ويشينغنكو كون مي نلان دي سانتو باخ دي نغرم دي خامل ني دين الاسلام جيغا خامل يينا موم يينا كو بوكو لي نين ديفار فيرندي لا سينو دوند الاسلام نا سوني بروم مو وخاني وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كون خيو خيو بي ويسو تي مسالكو جنان ne ah, eh, taxaway bi ci mi ngi sant nag taalibe Serigne Touba yi ak njabootu Serigne yi ci ñoom ñëpp itam niñ bàyyee seen yitte bàyyi seen lépp ñëw ànd ak moom bis bi ba mel nu kawe njortam waaye nag xam na ne li ngeen di jëf Serigne tax ngeen di ko jëf nee na kon mi ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di leen sant itam ci liggéeyam bu rëy bii nga xam ne sombuna ko ci dëkk bii muy daaree Seexul Xadim ji ci dëkk bi. daaw nag ni daaw la ko woote woon fii wax ci ay kàddu yoo xam ne ba nag ni kenn fàttewu ko nam ci soññe woon mu yëg ne taalibe yi jëfe nañ ko ba defe noo xam ne kawe nañ wartam kon nag mu ngi leen ci sant bu baax ci li weesu di leen ci gërëm di leen xamal ne itam euh, li ngeen jëf Serigne Touba tax ngeen jëf ko waaye Serigne Touba mi tax ngeen jëf ko rek tàbbala na leen ko ci biir liggéeyu Serigne bi mi ngi leen ci sant di leen ci gërëm di ñaan ngeen daye ceeg payug yàlla suñ borom daye ceeg payug Serigne Touba di ci soññee itam nag ci li ci kanam ñu xam ne liggéey bi li fi aggul rek kenn du wàcc ndax euh, yoonu murit amul wàcc wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin lii mu somb na kon di somb bu rëy sant na leen ci waaye mi ngi leen ci soññ li ci suñ kanam ñëpp gën koo def yitte ngir xam ne moo fi desoon ci naalu Sëriñ Tuubaa kon mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan bis bi itam ñu àgg ci ca bismillahi rahmaani rahim te génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te yàlla suñu moom defal def ci ndam def ci taw feex ba ni ko sëriñ bi bëggee rek kenn bañ ko wàcce ngir xam ne bis la bu mag boo xam ne lépp lu ci waaye fas te yéene ko ci ngir jëmi sëriñ Tuubaa daana ci daje moom ndax bis bi képp lañu mas a gis sëriñ Tuubaa woote ko njabootam gépp itam saa saa su masaan agsi seen yitte jëpp dañ ko jël jëmee ko ci bis bi kon nag nee na mi ngi fàttali ñëpp ñu xam ne sëriñ bi fonkoon na bis bi euh, lam ci deele woon itam ñëpp dégg nañ ko bañoon bi daay it moo tax mu ne mu tudd ko ak màggal ne buñ ko woy ak tabaskiwaat kon nag ñu koy waajal ñëpp itam nañ xam ne bis bi waajal gi baax na waaye li ëpp solo nag mooy bisu màggal gi bisu màggal gi kon bu ñu waajal li ko jiitu ba ci ci bisu màggal ga lañ ca war def di di wàññi ko kon loolu itam mi ngi koy fàttaliwaat bokk jur yi ak bokku taalibe bi ngeen xam ne bis bi ne ko Serigne Touba soso yoon loolu kenn waru ko wàcc ndax jëf lu mu baax baax la nga jëf tam dëppoog digal mooy la ëpp solo waaye la jub ci sama xel nga tànn ko rek mën naa bañ doon la gën ci yow kon nag xam na lépp lu baax la téréwu ko mi ngi koy mi ngi koy rafetlu waaye nag nañ xam ne lii mooy bis bi bis bi mooy bisu màgg di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar kon nag mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bokk di gërëm ñi nga xam ne ñoom la bokk Serigne Touba di gërëm mboolem ñi nga xam ne seen maam ya dañoo àndoon ak Serigne ba eh, sëriñtuwaa gërëm leen tofal ci seen ginnaaw mbooloo te ñoom ñëpp itam ñu ànd ak moom àndeen wa gën a rafet mboolem ñi nga xam ne ñoo taalibe Serigne Touba itam ñëpp di ko xoolee jëmmi Serigne Touba ñaan loolu lépp jég na ko waaye lépp nag dolliwu ko dara lu weesu gën a jël boppam jébal ko Serigne gën a jël boppam jaayante ak jaayante diggam ak Serigne sant na ñëpp gërëm na ñëpp ñu ngi ñaan ñu àgg ca ak jàmm te day ceeg tawféex day ceeg ngërëmul yàlla day ceeg ngërëmul Sëriñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kàddu yi dégg ngeen ko yi bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha dégg ngeen kàddu yi bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Bachir ñu ngi fàttali ne it bis bi mooy fukki fan ak euh, juróom-ñaar 17 octobre. Euh, yamook alxames ëllëg sa di ajjuma incha allah yàlla na ko fekkee ak jàmm sëriñ biit yàlla bàyyi ko fi lool mu yàgg fi lool yàgg feek nun lool tal ko man ko ba lim bëgg def lépp mu def ko loolu taalibi yëpp nañ ko ñaan dama leen di wax ne sëñ bi li ko nit ñi yéene buñ ko waxee ci seen xol yàlla def ko ndax taalibi dana ñaanal sëriñam ngir yéeneem ju rafet sunu borom nangu ko te ñëpp a ko yéene ndax ni mu yéenee ñëpp ni ko ñëpp yéenee kon na ñëpp ñaan mu yàgg fi lool waaw te kaamil yooyu ñuy jàngit Cheikh bashir wax ko yaakaar ne moo daan dañ daan nañ wax ne na ko ñëpp def ku ko man ak foo mën a ne rek nga def ko def ko addiyee Serigne Touba te ñaanalaale ci Serigne bi ni ko Serigne Bachir waxee wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.